waxatee si xatam mu njëkk moo di fi ñu toll ni APR daal fi toll ni moo ngi xool nañ lee dajalee li nga xam ne moo di mbooloom ginnaaw gi nga xam ne euh, am nañ waa PDS nag yéen bi nag lam ci moo di fi toll la nekk tête de moom mi nga xam ne dafa bëgg a demal boppam fi ñu toll ni nag jàppal ne waa APR ñoo koy wër ngir mu des si ñoom ñu jëlaat bi ne yéen kaay ci gën a dañu jël lii quotidien lii quotidien moom la mu xëtee jàppal ne yi nga xam ne moom la jëm ñaari doomu ndey yi nga xam ne fi toll ni buñ ko bëggee buñ ko bëggul jàppal nag fii élection yi di am dina am face to face boo xam ne dina dox si Ousmane Sonko ki nga xam ne moo di Barthélémy Dias ndaxte yéeni kayam nag la mu jàpp moo di Barthélémy Dias ginnaaw gi nga xam ne daanoon nañ ko si li nga xam ne moo di l'affaire Ndiaga Diouf nag fi ñu toll ni booba tey dossier bi amagul lenn loo xam ne a donc dafa nekk tëdd de li nga xam ne moo di Pastef jàppal nag moo euh, boobee élection dina neex ndaxte ñaari doomu ndey ñoom nag dinañ tase si euh, terrain bi dañu jël euh, beneen yéenekaay wax ca la ca gën a fës dañu jël bi nga xam ne moo di Source A moom la mu xatee si xatam gu njëkk moo di fi ñu toll nii l'affaire de Jérôme Bandiaky moom ko tegee loxo yéenekaay bi nag la mu ñu toll nii nag jàppal ne Jérôme Bandiaky moom nag retour de parquet la am ki nga xam ne daal moo di Jérôme Bandiaky moom euh, ñu toll nii am na si ay charge yu bëri euh, maanaam charge yu bëri yoo xam ne teg nañ ko si ndoddam jëlaat beneen yéenekaay wax ca la ca gën a fës dañu ñëw si Libération Libération association la mu xatee si xatam njëkk moom nag tey la mu àndi moo di association malfaiteur goo xam ne mën nañ jàpp Zeydan moom am na ko ndaxte dafa jàpp si sept agents yoo xam ne dañoo euh, def li nga xam ne moo ca wàllum luubal yéeni kaay bi nag la mu àndi moo di fi ñu toll jàppal ne koppar googee tooloon lu mat si vingt milliards yéeni kaay bi yemu ca leneen li nga xam ne àndi na ko te mu ca gën sa fas jàppal ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye ca sommet lam ci wax moo ne nag ah, suñu futur daal bu ñu ko bëggee defar jàppal ne foog ñu xool modèle bi nga xam ne moom lañ koy defee waaye nag dindi li nga xam ne moo di injustice ndaxte le président de la république yeneen kaddu yam ca yëkkati moo di fi ñu toll nag jàppal ne askan wi si boppam ñoom ñoo ñee rawatina ndaw ñi dañoo bëgg ñu xalaat yeneen yi nga xam ne moom lañ leen a réussir dañu jëlaat beneen yéene kaay wax ca la ci gën a fës yor yor yor yor moom jàppal ne ay révélation yu la def ki nga moom nag ginnaaw gi nga xam ne Abdoulaye Sylla mbiru euh, borom Ecotra moom moomee woo nañ ko doon ko laaj si li nga xam ne moo di wàllum or lu tolloon si 2750 kilos d'or yoo xam ne jóge na fii jaar te Paris jaar te Suisse waaye dem naka fi nga xam ne mooy ca Dubaï yéen kaay bi nag la mu waxoon moo di jàppal ne or googee ka ko mujjee woon am bi nag tey ñëw na or bi wax ñu détail ak détail fan la jógee ndaxte yéen kaay bi jàpp na ne or googee daal nga xam ne jëlee woon nañ ko si jet privé kenn moomu ko kudul euh, ki fi nekkoon njiitum réew di Macky Sall dañu jël beneen yéen wax ca la ca gën a fës dañu jël l'exclusif l'exclusif la mu xëtee si xëtamu njëkk moo di ah, Bougane Gueye Dany njiitalu gëm sa bopp moom nag dafa jàpp ne si élection yi nga xam ne moom la jëm général Tine nekkul kenn koo xam ne dafa équilibre wala nag kenn koo xam ne mën na organiser li nga xam ne moo di élection yi ah, Bougane ah, Bougane la mu jàpp moo di général Tine démissionné moom moomee duñ ko bàyyi mu dem fi nga xam ne moo ci élection yi ba tey si a wax ne euh, coow moom dafa judd ca Grand Yoff maanaam ba ñuy defar liste yi yéeni bi nag lam ci wax moo di fi toll ni am na si ñu bëri ñoo xam ne dañoo joxañ euh, euh, a tey seen demi-finale dañuy am équipe bi nga xam ne moo di Guinée yéen kaayam nag lam ca wax moo di fi ñu toll ni jàppal ni derby la bu am doole waaye nag jaraaf ginnaaw gi nga xam ne wane na boppam si li nga xam ne daal moo ca coupe ba jàppal na fi ñu toll nag jaraaf nag mu day jot lu toll si 322 millions jaraaf googee moo war a li nga xam ne moo di Sénégal lii mu gënoon fas si lii ñëwoon si à la une des journaux Tata Zoli jërëjëf euh, Daouda alors euh, ñu daal di yeewoo aussi euh, benn nakaraktis kii di Amadou Makhtar Mbow ñu ngi ñuy ni que daa wàcc liggéey jërëjëf euh, Tata Zoli ni nga xam ne noonu nga ko waxee mm-hmm. ki nga xam ne moo di Abdou Mactar maanaam ah, ki nga xam ne moo di Amadou Mactar Mbow mën nañu wax ne tey Sénégal tiis la yeewoo si Likoon wala ki nga xam ne mën nañ jàpp ne am na lu bëri lu mu service si réew mi di Sénégal moom moomee ñàkk na ba kanam mm-hmm. Abdou Mactar Mbow ah, Amadou Mactar Mbow buñ ko waxee xam nga ni moo ngi juddu si atum 1912 euh, fi nga xam ne mooy ca Ndakaaru Amadou Mactar Mbow mën nañu wax ne homme politique sénégalaise waaye Amadou Makhtar Mbow moom nag mën nañu wax ne si réew mi di Sénégal nekk na fi ministre lu bëri Amadou Makhtar Mbow aussi bu ñu waxee dañuy wax directeur général UNESCO atum ba 1980 Amadou Makhtar Mbow mën nañu wax ne nekk na ministre de l' éducation si réew mi di Sénégal mm-hmm. atum 1966 ba 1968 Abartane Ba gën a fi ministre de la culture euh, bu Sénégal si mille euh, si mille neuf cent soixante huit ba mille neuf cent soixante dix Amadou Bartar Mbow nag doon kenn koo xam ne ràññee nañ ko bu baax baax si li nga xam ne moom la def euh, si réew mi si Sénégal waaye de am Amadou Bartar Mbow mën nañ wax ni si atum deux mille huit nag bi muy am quatre vingt sept ans jàppale ne moom moomee mm-hmm. moo accepté woon nekk li nga xam ne mooy président li nga xam ne moo di assise nationale bu Sénégal assise nationale boobee nga xam ne front Sénégal. Sénégal moom moomee da ko defoon assise boobee objectif ba lenn la woon mooy ñu joyante li nga xam ne moo di wàllum justice wala lépp loo xam ne baaxul si réew mi loolee moo ko mujjee woon a jébbal ki nga xam ne moo di le président euh, de la république Abdoulaye Wade si atum 2022 Macky Sall si boppam dafa inauguré benn université fii ca Diamniadio tuddee ko ki nga xam ne moo di Amadou Mahtar Mbow mm-hmm. tey nag mën nañ jàpp ne Sénégal ñàkk na état ñàkk na waaye nag ñi am borom yi xam-xam ñàkk na Amadou Mahtar Mbow doon koo xam ne mën nañ wax ne yàlla teraloo na ko si at yi nga xam ne moom la ca dundu jàppal nag kookee tey moo génn euh, si réew mi di Sénégal Amadou Mahtar Mbow nag aussi bu ñu leen ko waxee xam nga ne te 1974 nañ ko waxee ne ni ma leen ko waxee ne nekk na fi direction générale de l'UNESCO de 1974 à 1987 Amadou Mahtar Mbow moo ngi ñàkk bakkanam bi muy am si 103 ans loolu mooy tiis bi nga xam ne Sénégal moom la yeewoo xanaa di ko ñaanal suñu borom xaare ko aljanay si waaye aussi samay kaddu si kaddu euh, tata Zoli ak ñi nga xam ne 313 ñoom ñëpp foofu la ñu ne ñoo ngi euh, ñoo ngi jàlle mhm. euh, njabootum Sénégal waaye rawatina njaboot bi nga xam ne moom moo ko gën a jege tey mën nañu wax ne Sénégal am na dëj si nit ki si dimension bi nga xam ne moom la nekkoon mhm. si réew mi yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljanay firdawsi allah mamin alors ñu daal di euh, nuyu internautes yi nga xamante ne ñoo ngi ci biir live bi ku ci mel ni si Sissoko ñu ngi koy nuyu euh, Cheikh Soxna Badji yow tamit ñu ngi lay nuyu bu baax a baax euh, Biboulaye Touré soppee Daouda Djiguel ziar nañ la yow itam bu baax une vie de plus ñu ngi leen di nuyu Binta bu bu Décce ñu ngi lay nuyu yow tamit bu baax a baax yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen jaajëfal alors dawda ñu daal di dooree tey sunu jotaay. ci li la euh, mbirum euh, pirogue bi nga xamante ne gaal gi nga xamante ne ni bii daal di nañ koy euh, gis fële ca boori Mamel mm-hmm. ñu ngi ñu ngi xamal ni que génnee nañ ci lu tolloog ci 38 corps mm-hmm. waaye foofu noonu ca ca ca ca biir gaal ga mm-hmm. bokk na ci ñaar yi nga xamante ne ni xaw naa nuroo ay kooru jigéen waaye daaw da laaj gi ma ciy samp mooy lan lañu ci mën a waxtaane tey ci boobu la jéeye ni nga ko waxee ne am na ginnaaw gi coowal nguur ay xale yu bëri ñàkk seeni bakken mhm. ñu leen di suul te jeexagul mhm. mën nañ wax ne beneen tiis dugg na ci réew mi di Sénégal mhm. euh, tiis googee nag lu ko waral